Sidna Aliou sax ci biir waxam wax na leen ba ni ba tudd baatu naqar wala fa koy wax waaye man ni may dundee dafa àndutal dafa dul mën a ànd ak naqar waaw ni may ndax koo xamante ni bii sa maam buñ ko nee diw deena mu ne alhamdulilah bu ñu ne ko diw néeg ba dafa lakk ci kawam lakk na ba ñor xom mu dee mu ne alhamdulilah bu ñu ko diw soxnaam am na doom mu ne alhamdulilah diw dam damm mu ne alhamdulilah maam Thierno Birahim kenn mënu koo garaawalal dara dafa am lu ma ci diw je suis extrêmement dangereux man waaw man Modou maa leen wax loolu ba tax na du ma nangoo am naqar li ko waral mooy ku tedd ki dafa ma baaxee defar xol bi fóot ko ba mu set ci li nga xamante ni bi wax na ko nee na moom li muy wax waxul rek yam ca xam nga ñun ñoo dul settantal rek waaye jii mii fu mu ko wax moom ko tedd ki fu mu ne jii mii xoolal lan mooy jii mii bu ne sama ñett yi parce que waxul ko da ko codé yaatu rabbiya wa rabbiya wa jii mii jii mii jooju lan lay bindee loxo nday joram ci lan ci xalima fu mu koy sëpp ci daaji mm-hmm. loolu mooy jii mii